Oh, mettez-le, mettez-le parce que donc au Sénégal moo moo gagné donc moo moo jël ballon d'or vite. je pense que ça fait au moins seize à dix-sept ans depuis que ko El Hadj ba jëlee ba léegi Sénégal jëlu ko donc tey Sadio euh, jël donc dañ ci dañ ciy kontaan euh, bég ci et puis avec une fierté parce que métti woon na daaw kim ko dum xëccool Sénégal la ñëw jël ko fii jël ko foofu suñu dëkk donc ren tamit moom mu ñëw ci dëkkam jël ko donc euh, c'est une fierté donc football non la donc dafa gëna gën daf ko gëna yokku jom moo tax tey bon ba ñu ñëwee fii tamit mu jël ko dañ ci kontaan dañ ci bék lool. ah différence bi rek moy sen saison parce que euh ku ci nek ak sa saison euh daw euh daw sala mériwutoon na quand même euh sacrum bi bañ ko joxé ballon d'or bi ren it Sadio Mané du ma ne ëpp but sax waaye tamit moko gëna gën influent gën a influent ci euh, ci club bi ci club seen club Liverpool boobu mais en même temps tamit Sadio tamit daf na yóbbu na équipe en ba final euh, ci Coupe d'Afrique bi avec quatre buts au bout donc loolu tamit euh, performance yu yu yu mucc ayib la yoo xamante ni dafay compter ci ci Ballon d'Or en tout cas bëgg nañu kontaan nañ bu baax on le félicite et puis mu continuer de continuer di bégal Sénégalais di représenter Sénégal au sur le plan international bon xam nga dans la vie, il faut avoir la classe. La classe serait que euh, Momo Salah ñëw nous nous ñu gagné comme ça demande euh, Dakar donc c'est leur choix nous, je pense que le monde du football mais euh, c'est leur choix Nous nous, nous, rek nous dañuy ñëw surtout Momo sala mi nga xamantene fi la dëkk euh, comme Sadio defoon na ko daaw na ñu donc man gëwuma ne euh, gëw ma li nga xamantene jour yi nga xamantene ne dañ naan du ñu ñëw bu doon lool la kenn du ñëw ndax ñun ñi dañuy ñëw pour assister parce que c'est la euh, c'est la fête du football africain et quand l'Afrique fête son son football je pense que c'est un domi dañu wara ñëw taxaw fekkee ko tamit jëmmal bëss bi c'est important.